Tape www.suividecolosénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as ngir waa Quraysh xam li ñuy def fee xam ni ñi gëm Muhammad sallallahu alayhi wa lii kéemaan gi kéemtaan gi lañ nekke mu ne bi mu leen ne bàyyi leen ma ma dem yéen a ngi xalaat fami boo xam ne dinañu ma protéger waye fa inna allaha sayamna'uni yàlla ci bopam moom mooy protéger bopam ah fa ghada abdullah hatta ata al maqama fi duha wa qurays fi andiyatiha xatta qaama عند المقام فقال رافعا صوته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن لول سار لا فا جانغ كيروك muy suratu rahman mu leen yàlla moo may protéger waaye bi mu demee xëy rek aw yoonu kaaba ga dem ba tolloog maqaamu ibrahim waxtu yoor yoor fekk waa Quraysh ña nga ca seen daje yaak réunion ya toogandoo ñoom ñëpp ci seen mbooloo moomu foofu Abdullah ibn Mas'ud ni ñokket dal di taxaw yëkkati baatam ca kaw nag dal di wax ne bismillahi rahmani الرحمن علم القرآن آه فاستقبلها فقرأ بها فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ثم قالوا إنه ليتلو بعد ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أذروا بوجهه فقالوا هذا الذي خسينا عليك فقال ما كان أعداء الله قط أحون علي منهم منهم الآن ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا قالوا حسبك حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون عبد الله بن مسعود bi mu yeggee ci kaaba gi ba jàng suuratu rahmaan naka mu tàmbalee ñoom ñépp ñu jóg jublu moom di ko seetlu di ko xool ba yàgg ñu ne waaw ibnu ummi abdin mi lu muy wax mu abdulaay ibnu ummi maktum doomu ndeyam ji abdulaay mii di doom ju ndeyam jur <laughs> waaw kii yi muy wax lu mu doon am ñu ne kii de mi ngi jang lenn ci li nga xamne mo ñew ci muhammad sallallahu alaihi wasallam, ci muhammad nee ñu ne lan ñu ne ko ah, lolu ñuy jang de lolu waakar muhammad yi di jang de lolu da la lenn ci lolu da la ñew di ko fi waye buñ jógee ñom ñepp sam ci kawam door ko gañ ko waye teewul muy jang ñu diko door ñi diko ko lor ci xetu lorange guñ ko mën loré muy jang ba yegg fam bëgg yegg ci la neex yàlla waaye bi muy matalee ba wàññiku dellu ci saxaaba yi saxaabatul kiraam ci bokk yi mu bàyyeekoo woon ñu gis ci moom coono lool ak metit lool ak jeexiti dóor ak jeexiti gaañ-gaañ yu ñu ko gaañ ci rawatina ci xar kanamam gi ñu ne ko lii lañ doon ragal ci yow boo gisoon nu naan la danoo bëggoon seet koo xam ne lu bon bon daanu ko ragalee bokkam nga di ñu wax ni yàlla moo la protéger mun ne loolu laay wax ba tey te gis ngeen fi yegguma fii ah, gisuma ci non yalla yi kan mo gëna ñak fayda ci sama kanam ci wa Quraysi ñak nañu fayda teguma len fenn yeguma sax li ñuma ma def jégaluma ko sama yaram te gis nga suko la jaatun suba su len neexee suba ak jàmm xiyat delu def ko ñu ni ko dit dit dit yow koy bax na rek ginaaw digal digal déggal nga len li ñu doon baña deg ñu diko ngul ngulé ñu diko bëgg ko deg ta mënuñu ko deg di wane ni bëgguñu koo dégg te ku ko ku leen ko déggal dinañu la def nii dinañu la def naa déggal nga leen ko loolu kay doy na jeex na waaye yàlla ci boppam moo def ci alquran loo xam ne ñu bari dégg nañu ko loolu leen tax a dugg ci lislaam ñu bari dégg bu ñu ko dégg moom alquran jàng gu ko jàng fi ñoom ak kéemaan gu nekk ci alquran goo xam ne yéem na leen ñu xam ne di jógewul ci nit bari na ci ñoo xam ne sababu loolu moo leen dugal ci lislaam moo tax euh, xeli arab yi alquran jaaxal leen taxayarat albaabul arab fi alquran allazi nazala bi luxatihim wa hum ahlu fasaha wa balaaga ah wa xasiyat qurays an yantashira الإسلام وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم بدينه على الأصنام فاتفقوا على إطلاق اسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفر القبائل منه ويشوء سمع سمعته ويكون عقبة في سبيل نصر دعوته ذلك إن الوليد بن مخيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معصر قريش أنه قد حضر هذا الموسم قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعده بعدا فقالوا فأنت يا أبا عبد الشمس فقال وأقم لنا رأيا نقول به قال بل أنتم قولوا أسمع قالوا نقول كاهنا قال والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهانة فما هو بالزمزمة الكاهنة ولا آه، زجعه قالوا فنقول مجنون قالوا ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخادجه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بساعر لقد عرفنا الشعر كله رجسه وهجسه وقريده ومقبوده ومبسوطه فما هو بالسعر فقالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر لقد رأينا الصحارة ومقبودة وسحرهم فما هو بنفسه ولا يقده قالوا فما نقول يا أبا عبد الشمس والله أن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه للجنات وما أنتم بقائلنا من حاجة شيئا إلا عرف أنه باطل وأن أقرب القول لأن تقولوا ساحر جاء بقول بقول وهو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعسيرته فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بالسبل للناس هنا قدموا الموسم لا يمر أحد إلا حثروه إياه لكن النتيجة جاءت عكس ذلك فقد انتصر ذكره صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب النبي صلى الله عليه وسلم yàlla wàccee na ci moom loo xam ni wedam loo na làmmiñu arab yi jaaxal na muy alquranul karim ndax wàcce na ko ci seenu làkk te ñoom ñooy ñu gën ñu gën a éloquence ci nit ñi fasaaxa la leen yàlla defal waaye balaa dañu ko am waaye si nag ragal nañu li ñu ragal mooy waxam jii ak melokaanam wi ak wax ji yàlla wàccee ci moom mu di ko wax te ñoom mënuñu ko ñu jéem jéem jéem xam ni lii wedam loo na leen ñu ragal nag lislaam tasaaroo ragal yonent bi alayhi salaatu salaam am ndimbal ci kaw suuf ci diineem jii dañoo ragal diineem ji yàlla dimbale ko ci maanaam nit ñi ànd ci ba tax seen xërëm yi daan wala mu deltu gannaaw ah kay la jëm di ñoom ñëpp nag ñu d'accord ci ni dañu koy wutal aw tur nañ ko jabolisee seet nuñ ko jabolisee ba nit ñi duñu ko gëm mbaa dootuñu déglu li muy wax mbaa ku ko juum ba déglu ko doo ko doo ko déglu pour gëm ko danga koy déglu pour xam li muy wax waaye du pour gëm ko ñu ne loolu nu ñu koy defee waa ju ñuy wax Waliid ibn Muxiirata ni leen dañuy fexe ba wutal ko woo xam ne mboolem giir ñëw màkka giiri arab yëpp dañu koy daw te moom borom wax borom làmmiñ la woon ci ñoom borom baat la woon ci ñoom boo xam ne bu leen digalee ñu ni ko loolu nu ñu koy defee mu ni bu aj jubsee ñu ñëpp dañ doon ñëw ci kaaba gi paraat ajug lislaam nag moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom ma ko farataal ci moom ci gannaaw ba mu demee Madina waaye dañ daan ñëw di umra si di aj si si di wër si kaaba gi di di def si lépp di fa jaamu si yàlla waaye booba it la ko wër ci ay yàlla kenn xamut nu mu toll ci lu ñu tuddee ay yàlla waaye wala dim nu mu xirata ni leen giir guñ ñëwati bu waxtu bu bu bu allocation boobu jotee léegi xam ngeen nu ngeen defee da ngeen di wër mbedd yëpp ginnaaw màkk màkka nangami mbedd la yoo xam ne yu dugg màkk lañu mbedd mu nekk na am ñu fa toog groupe gu jub si rek ñu waxtaan ak ñoom bala ñoo dugg màkk suba gu nekk di leen xëy ci loolu suba ba ngoon kuréel buy dugg si rek ngeen wax leen ni leen ngeen wax leen tur woowu wax leen ay melokaanam ñu ni léegi yéen lu ngeen lu ngeen fas yéenee wax damay leen di wax nag ngeen déggoo ci lenn loo xam ni kenn ci yéen du wax lu weddi la moroom ma wax kenn ci yéen it du ci réerook moroom ma yéen ñëpp yéen ay bokk lu ngeen di wax ci moom ba ñooñu suñu dajee ci biir dëkk bi ku ci ni pemm ci moom rek da dal di xam ni kii lii lañ la waxoon ci moom ku ci dajeeg say moroom itam ci biir dëkk bi tam ni ndax dégg nga li ma dégg mun na loo dégg nga ne nangam yëf yi nekk benn loolu nag nu ngeen ko fas yéene defe ñu ne ko ah ñun de li ñu gis xanaa di ñu gis té ya ya baab de sams ah, xana ñu xal ñu xalaat rek nañ taxawal ben xalaat rek mu ne ah, na dégg li ngeen bëgg a xalaat lu mu doon ñu ne ko ah xana nu wax ne ki dé ab jibar la rek ki dé ki dé ki dé bu xama la bu xama la bo xana day def yo yu kéemaane yoo xam ne fenn bu xama la jëkë indi dooro indi mujjé turu jibar bu xama la nuy wax leen hé du bu xama de bu ngeen waxee bu xaama du ngeen jàll de boobu tur du dem ndax ñoom ñëpp xam nañu bu xaamakat yi gis nañu yi ñuy def te bokkul ak li muy def moom yi bu xaama yi di def di di di di di di tàkkal ay affaire ak a fay ak ak a soppi lu kenn xamul di di di fayi deful yooyu de fa maa huwa bi zimzimatil kaahini de <laughs> wala sa ahi ñu ne ko ah kon na xanaa nan wax ni dafa dof loolu it yëpp alxuraan nañ ko nettali de nañ wax ne dafa dof boobu mun leen a ah, doful de <laughs> doful maa huwa bi majnunin laqad na junuuna ñun xa gis nañu dof yi gis nañu ak ndof ni muy def ci nit te ñoom itam dofuñu xam nañu nu ak ndof def nit amul dara lu romb rombul daqaar ni ko wolof di waxe rombul sax Dakar jinne yooyu sa daata ñu naan dañoo dëkk ci daxaar mu ne rombul sax Dakar niroowul amul dara ci lu jaxasoog ak ndof lu nekk ci moom amul dara luy niroo ko ak ndof amul dara lu ko gaar ci luy niroo ko wayadi ñu ni ko ah xanaa kon dañuy wax ni waykat la rek waxam ni moom day tëgg ay way di di day sadd ay woy rek di di di taalif di dem taalifkat la wuy taalif ay woy rek mu neen aka sore ku mel noonu kooku du du taalif katu ay woy de maa huwa bi shaa'irin laqad arafna sha'ra kullahu xam nanu arab yi yéen a gën a xam nu ñëpp xam nanu xeeti woy yi ni ñu koy tëggee woy rajas yeeg haja hazaj yeeg qarida yeeg maqbuda yeeg mabsuuta yëpp xam nanu ko ci woy fama a fama huwa bi sha'ri kii yi muy de te ñom buñu ko dégloo da nañu xamni kon li ngeen di wax du dëgg ndax ki de woyul ñu ko kon xam nga lu nuy wax nun ñëpp nañ d'accord ci ni ki ab jibar la xam nga ab jibar da dana ni tek japp njàmburam ni pat la fa koy fekk mba fa muy fekk nit ña la gor gi maxtar sek mboro yal na yalla yeeram euh doli ci ak xewal da na wax ni kan pexé mu ne bu may wax na ngeen ma déglu bu baax waxuma ab ñaankat waxuma koy ñaan ki ma leen di wax mooy ki dem ba amatul menn pexe mu xaar ne xaaral fi may dóore martu mooy naa dajale ay sunguf ak reen yu ma xamul lenn sol ko ci saak gàddu ko su ma xëyee yenu ko fu ma jëkk li may ñaan nag mooy fu ma jëkk ni bëcc rek yàlla naa fa fekk malaat bu leen lëjal mbaa soxla su leen jaaxal ma tëb mu tëb ni mën na ca dara nee na kooku moo di jibar waxul ñaankat ñu ni kon nan wax ne jibar la mu ndeen kooku du jibar de kii ngeen di wax kii ngeen di bu ngeen waxee nit ñi ni leen jibar la léegi leen ngeen di weddi ndax yorul dara jibar ma huwa bi shahirin laqad ra'ayna suhara ñun gis nañu jibar yi ak lañuy def xam nañu leen saharatu musa deg ngeen ko ba ngeen eh, xàmmee ko ba ngeen di dégg ci nettalikat yi ñu di leen ko nettali te yàlla mujj ko ñëw indi leen ko ci alquran ba mu leer nañ gis nañu njibar yeeg njibar yeeg li ñuy jibare ak li ñuy fóonal nit ñeeg li ñuy naxe nit ñi ak li ñuy jat di ëf kooku ak li ñuy fas ah, fa maa huwa bi nafasihi wala aqadihi du du du jatul jatul ëful ñu ne ah kon léegi lu nuy wax yaa ba Abdou Sams waxal kon ban la lañu koy wutal nun koy jabolisee ba nit ñi daw ko ba bañ déglu li muy wax mbaa buñ ko dégloo bañ koo gëm mun leen baat yi ngeen indi yëpp de euh, njibara ci tane ci ni ñu koy tame ñu ñu ko yàq ko ndax li ci njabar tane da ngeen di wax ni moom day day jabar ay nit ba euh, seeni xool topp ko lu mu leen santati ñu def ko lu mu leen tereeti ñu bàyyi ko moom day dafay jibar aw nit ba teqale diggante aw xeet ñee aw fee ñee aw fee moom da dangeen di wax ne dafay jibar aw nit ba teqale diggante baay ak doom mbaa ndey ak doom mbaa boroom kër ak soxnaam yooyu ngeen def ndax moom lii mu lii mu nekk képp ku ko ci fekk rek ña nga xam ne nekkuñu te dafay daal di am lu dox seen diggante yaak ñooñu daanaka dootu leen seen lépp dootu mën a jaxasoo bu dee dafa woo doom ba doom dem ca naa mu ne ko léppam dootu doon léppi baayam bàyyi bu mu woo ba nga dem wuy ji ko ci lii muy woote itam muy njàngam njàngam mi ak alxuraanam ji ñuy bañ ngeen déglu ko bu leen ko déglu ndax ku koy déglu ba dem ci moom rek dangay ngay daal di wuuteeg nit ñi noomeel doo dootoo mën a jaxasoo nit ñi ci lépp ndax moom ay principe bi boppam la yor loolu daal moo ci xaw a tane wax leen daal ne ak njibar daal dana jabar xel yeeg xool yi dana jibar lii dana jabar la waaye bu leen wax mukk ci njabar gu palpable goo xam ne da ngeen koy wax ni dangeen koy wax ni ñu leen moom la déedéet a ah, ñoom itam ñu daal di wéy def groupe par groupe mboolem fu mag makk am mbedd moo xam ni la yàlla doon wax naan yatuuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin ña ngay waaxu di ñëw ña ngay waaxu di liiru di ñëw yatuuka rijalan ñi ngay liiru di ñëw ñi war ñi di dox ñuy dugg si màkka mbedd mu ñu gis ni rek am mbooloo nga fay jaar di dugg si rek am na ñu ñu fa teg ñoo xam ni mbooloo mu dugg si rek ñu tàyyi du bàyyi ci la ñuy xëy ba wàcc jot ñeneen remplir remplacer mbooloo mu ñëw rek ñu waxtaan ak yow xamal naa ah, mbir mi dëkk bi de dafa am lu bees lu fi xew dafa am daal waa joo xam ni ah, moo fi woote nee na li muy wootee diine la waaye moom day ab jibar la ndax moom daal danay wax a wax a wax ba góor gu ko gëm pour yaag sa njaboot sa njaboot dañu koy gëm nga mën a teef jàmmook ñoom wala daanaka bu ko sa njaboot gëmul daanaka day bare lu ngeen wutale euh, borom soxna su ko ci gëm daanaka da ngay daal di ci xale ko su ko sa boroom kër gëmul borom kër goo ko ci gëm da ngay bëgg sa njaboot yëpp say soxna bu ñu ko gëmul day am fooy yem ak ñoom moom daal wax a wax a di yàq ndekete ndeysaan lañ doon bañ <laughs> lañ doon bañ contraire ba lañ doon bañ <laughs> ndeysaan lañu doon def contraire baa leen di daal lañu bëggoon la bëggoon a am contraire ba la ñuy am mooy ndekete ñoom ñu ngi koy publicité te yëguñu ko ndax xam nga nit mënoon na faa moomu mbooloo mépp moom mënul di kenn te fu ne mu ne fa fu ne mu dem fa waye ginaaw xass nañu ko wax ñepp ñepp ñepp ku dugg seeti ci dëkk bi sa xel ci mom lay nekk fu mu mëna nekk di ko wër ba dem déglu ji la muy wax té mën na am buñu ñu noppi woon waye yalla mo bëgg doxale mbir yi non yalla bëggul ñu noppi ci dafa bëgg ñu far lañu doon bañ ñu def ko lañ doon bañ ku ko yëg ñom ñoko doon yëgle ñoom de ndeysaan ñoo publicité mbir mi ñoko publier waxtaan yi yépp nak gars yi daal di ñëw aimé <laughs> résultat bi daal mooy loolu ñu bëggoon ñoom mooy jaa aksu dalika faqad intasara zikruhu sallallahu alayhi wa sallam fi biladil arab léegi nag ndeysaan réewu arab yi doon ñëw yëpp defoon ay délégation di ñëw délégation bu ñibbi bu ñibbi rek délégation bu ñibbi rek daal di ngay tàmbalee tasaare daawa boobu nga xam ne moom nga dégg ci sallallahu alayhi wa sallam mu doon ko woote